jógee Kaolack nga nekk conseil municipal fële ca Kaolack quel Kaolack ci li nga xamante ni moo di régime euh, président Diomaye est-ce qu'il y a un changement yow mi nga xamante ni yaa ngi ci mairie bi euh, quelle la situation actuelle. bon Kaolack moom on peut l'apprécier localement d'abord avant ñuy jël di ko insérer dans la euh, dans le circuit national localement d'abord. Mmh. va bien. Hein? va bien. waaw pour le commun des Sénégalais ñooñu loolu la xalaat ça ne va pas. ça ne va pas. que ça n'avance a suñ ko circonscrire ci maire bi san ne marche lu tax jox ñu ay infos. bon euh, tey jii nii Kaolack après ñoom ñëpp mën nañ commencé wax de bi ñu toogee ba tey ak li ngeen di gis ci aspect communication communication dafa grave mm-hmm. lépp lépp. man li ma gis loo xam ne nii c'est fonctionnel mm. lu ñu defar benn poste juuti la boo xam ne tabaxuñ ko dañ ko réhabilité ñëw inauguré ko loolu moom defagum nañ ko fa. inauguration. juuti bu fa nekkoon. ok ko réhabilité ko réhabilité ji jóge nañ six milliards dem sept milliards comme dem dix milliards looloo fa nekk des projet yoo xam ni gisoo dara ci àgg ay waxi kese ay machines yu ñu indi qui ne sont pas productifs un maire qui passe tout son temps dans la presse un maire qui fait juste tout ce qu'il veut avec une personne te li gën a grave politiquement victoire bi nga xam ni nii ak yaakaar gi nga xam ni Kaolack amoon na ko ci équipe suñu équipe municipale bi yaakaar du ko gën a rëy cinq pour cent lañ ko jox cinq mille voix ci koo xam ne yaa ngi doon représenté wu ci élection. Serigne Mboup mhm. Mhm. nit ñu fàqee fu ne Pastef fu ne am na ci ñenn ñoo xam ne Pastef lañ bi Pastef taajee seen seen seen seen candidat fa lañ ko bàyyi. man nii mag Sall doon àndal ba mu tànnee Modou Ndiaye Rahma fa laa ko bàyyi. ñeneen ak ñeneen ñi nga xam ne nii mosuñu politique sax mosuñu wax ci politique sax dañ doon jóg topp am yaakaar parce que dañu bëggoon lu mu mais tey dama leen di ñaan rek dem leen foofu rek am ngeen fay mbokk wala am ngeen fa ñu ay xarit wala am ngeen fay ci ni jeune ne peins pas d'une manière obscure le tableau de Kaolack mais je relate exactement la situation qui est là d'abord une toute première trahison mooy la rupture sociale qu'il y entre le maire et sa population il a une rupture il une véritable rupture rupture avec ses collaborateurs ah parce que ñi nga àndaloon dem uti ji mairie ñu sonn ci loolu nekkat yow la première chose mooy nga écarter leen ba ñoom ñëpp ñu dem ci yoon gis nga yoon nag ñaar dong la. ñett ah, ah, ah, taxaw taxaw taxaw danga bëgg a wax sëriñ bu dafa séparé wu. ak dafa trahir nit ñi dafa trahir dama lay wax bi gën a yomb. soxna si lay jox dafa trahir ñu mu àndaloon. am na yoo xam ne danga nga leen di trahir. yaa teg sa bët. man dama koy dund man conseil municipal la man maa doonoon euh, son euh, chargé de com. kon da ngaa bokk ci ñu trahir yow. no man man benn caractère laa am. dañ maa trahir ba pare bàyyi wu ma. am na ñoo xam ne trahir nañ la dem toog ñu ne ñoo garaawul bàyyi nañ ko ak yàlla am ñoo xam ne nii des fois ñu ne non non non mais man da yi ma ci def xool li ma ci consacré wu man non la ko bàyyi noonu dama koy wax sax man ko doo ma def comme limon presque ba pare sànni ma c' est la raison de mon activisme politique au niveau de la li ñu waxoon askan bi na ko def. est que est ce que am na jumtukaay yu mu ko defee parce que nag dañuy waxante dëgg Kaolack problème yi du tey de. du tey du démb. non kaay ma xamal la nag xam man la lu ma d'accord. bu ñu def comme ni li ma dégg ministre Cheikh Tidiane Dieye def. mais wax dëgg yàlla nawet bi du suñu nawet. man loolu lay bañ bu ne lii du suñu kii fee la nekkoon direct. l'administration c'est une continuité. quand tu viens tu hérites exactement de ce budget tu hérites des bienfaits. ci hérites effectivement de biens matériaux matériels et qui sont mais aussi tu hérites des problèmes de la commune. mais euh, waaw nga jéem a transformer le passif en actif c' ça le génie. mais mais mais le génie politique ñoom gis nga boo taxawee wax ko ne ko vraiment lii mënuma ci dara sénégalais léegi il est tellement intelligent que ne non kii mënul régler son problème mais no hope no life sans espoir pas d' sans vie. bu yaakaar amul nit dund du am. d'accord nit ñi dañoo yaakaar ni moom. il nous a vendu des choses j'ai un carnet d'adresse man mi doon waxal je faisais partie j'étais la moelle épinière de ceux qui véhiculaient les messages de Serigne. et dans tout ça je savais exactement ce qu'on disait ce qu'on portait au niveau de la population. li ñu wax tey ak fi ñu toll. ça fait deux. non seulement il a trahi ses collaborateurs mais aussi il la trahi. les la la population kaolackoise qui avait porté un grand espoir sur notre sàmm suqal set xam setal sàmm suqal yi. est-ce que est-ce que jot nga toog ak sëriñ boobu pour wax ko lii ngay wax nii actuellement. pour lii nii. Mm. <laughs> man conseiller municipal laa di. mais est que jot nga toog ak moom. tête à tête ci lan wax ko lii ngay lii ngay ñaaw. yow xam nga sëriñ. xam naa ko nii rek. xam nga sëriñ boobu. xam naa ko nii rek. voilà boo ko xamoon ci ngay jéem a xam ndegam di nga wax ak moom wala wax ak moom. nit koo xam ne li mu bëgg lay def dégluwul nit ñi sax day day day kii nii rek pour nga ne non saye waxtaan nañ mais du ko def. chef d'entreprise la. Hmm. oh quand même. Euh, bon. Euh, euh, mooy ki nga xam ni sëriñ mooy ki nga xam ni. su la mayee yàpp. da lay boole ki xaj. <laughs> donc non dama lay xal pour nga comprendre non may ma dama la dama la koy dama la koy dama lay imaginer pour nga mën a comprendre kan mooy sëriñ su la ah. nga ne non tey sëriñ defal na ma affaire mais da lay boole ki xaj. foo génnee yàpp bi xaj la mbaw su la mayee su la mayee lem ah boole laa ko yàmb doo ko mës a màcc je l'ai compris et on a compris exactement sa démarche. mais c'est quel genre de ko li ma la wax je ne gis nga li ma lay waxal nii su la neexee li ma lay waxal nii pour me montrer effectivement ma bravoure dans tout ça. éviter mm. ku la neex ci ñoom. ñu ñëw ñu def sa débat contradictoire nga jàkkaarloog moom waaw loolu jeex na tàkk ça parce que sëriñ boobu amul kenn ku ko fi waxal amul kenn aussi ku nga xamante ni day apporter ay propos yoo nga xamante ni. Euh, déedéet loolu loolu yomb la Adja man maa la ko wax man Ablaye Gueye maa la ko wax. amul problème boo ko bëggee tëgg rek tëgg ko. incha allah.